def seen xam-xam seen doole seen xarañ ci élection bi incha allah dinañu ko ci tàppal ñu ñu ci àndal incha allah ku nekk dina wax yéeneem ak pas-pasam ci senegal ci biir campagne électorale bi incha allah waaw man xaw ma mooy loolu <laughs> li ñu xam daal mooy am nañu yéene lépp lu ñu xam lépp lu ñu man pour liggéeyal Sénégal liggéeyal askanu Sénégal ñu def ko. président Idrissa Seck. jërëjëf waaw donc je voudrais tout d'abord euh, rendre grâce à Dieu de l'opportunité de nous retrouver ici à Touba auprès du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké auprès de qui nous avons sollicité mhm. des prières avant d'entamer la campagne électorale. Mmh. Nous sommes venus accompagnés d'une très forte délégation mhm. en présence du président Pape Diop de Bokk de notre frère et ami Malick Gakou, du représentant le maire de Kaël de Hadjibou de Thierno qu'un très grand nombre de leaders que je ne peux pas tous énumérer. Mais en tout cas, nous constituons une très forte coalition qui a pour ambition le redressement de notre pays à travers la restauration d'une bonne gouvernance, l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre et la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, un développement économique qui garantira l'emploi principalement à notre jeunesse, la sécurité aussi qui constitue une préoccupation pour toutes les populations, mm -hmm. ailleurs comme ici à tout Mm -hmm. Merci euh, beaucoup. <laughs> Mhm. Non, nous, nous sommes une coalition et une plateforme de leaders qui ont décidé de mettre en commun leur vision, leurs moyens, leur engagement au service du pays. Et c'est cette plateforme-là qui porte ma candidature. L'objet, de la visite, Nous vous n'êtes pas très, très, très Vous n'êtes pas revenu sur l'objet, de votre visite ici. L'objet de votre visite, vous l'avez pas.